asalaamaaleykum yéen mbokki commerçant yi man Dame Diagne président résional UNACOIS jàppoo Thiès maa leen di nuyu di leen sant leen gërëm leen yëgal ne président Idi am président national dafay waaj a def tournée économique ci Sénégal def ko ci réew mi tàmbalee ko Thiès ndax dafa am lu ñu gis ci réew mi loo xam ne day yàq économie réew mi di rey commerçant yi nekk ci marché yi noor ak nawet

fexé ba Auchan niñ ko dakk Maroc dakk ko Dewar dakk ko fanen ñu dakk ko Sénégal gi ndax mi ngi nuy ray mi ngi nuy gañ mi ngi jël sunu économique mi ngi yaq sunu économique réew bépp commerçant bu def nag bokkoo ci ba toog sa place yow paaka bi lay rey yaa ko jël teg sa put te xamuloo ko ñun nag danoo xam loolu gis ko moo ñuy def appel di woowaa réew mi ba lay looloo ñëw ndax da ngeen noo jiital ñu nekkal leen fi jiite commerçant yi kon buñ gisee loo xam ne day rey réew mi di rey commerçant yi di yàq économie gu réew mi danañ leen ko yëgal yéen commerçant yi nekk ci Sénégal yépp rawati nag waa Thiès kon samedi 14 juillet à partir de 9h nag commerçant yépp tëj marché yi tëj boutique yi ñu dajaloo te promenade des Thiessois pour jooy Auchan mu jóge ci réew mi ndax Auchan ngi yàqal commerçant yi mi ngi yàqal waa réew mi mi ngi yàqal doomu réew mi képp ko yaakaar ne nag defe nga ne bokkuloo ci yow moomu yaa ci gën a bokk ndax commerçant yi ñoo nekk fii di joxe ravitaillement yi di lebal nit ñi Auchan du lebal kenn Auchan du dimbale kenn Auchan du jàppale kenn te Auchan mi ngi nax waa réew mi di nax commerçant yi di nax population bi rawatina ñëpp képp kuy jënde ci moom ndax marchandise yi lañ koy affiché te fa ñu koy affiché boo ñëwee ca kees ga lañ lay laaj di la ko fayee di ko def seen poche du bokk ak la nga gis yow boo demee ba sa kër ngay mën a contrôler loolu gis ko boo demee ba ca kees ga laaj ñu ne la loolu prix hors taxe la woon hors taxe boo koy wax fii Sénégal 90 pour cent ñi ñiy jënd ka jaay dañoo xam luy hors taxe ñoom nag loolu la ñuy liggéeyee bu ko defee yoon du mën a dal seen kaw te ni ngi rey population bi di rey réew mi lépp loo jëndee au boo ko jëndee ca bitig ba ka jaaye ca marché ba wala ca koñ ba loola boo dee marchandise yu bari boo ko seetee moo gën a yomb fuuf lala la di jaayee te xamuloo ko booba te nit ñaa ngi naan Auchan fi gën a yombale te Auchan fi gën a seerle te mi ngi rey commerçant yi di rey population bi léegi nag li ñu bëgg mooy Auchan na jóge ci réew mi na nanu Auchan abal ni ñu yore woon suñu réew di ci dund ba àddina soobu na nii loolu lan kon kon bëgg continuer di ci dundee te Auchan abal na Auchan dégage Auchan dégage Auchan dégage billahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim yéen waa Sénégal yéen waa région de Thiès yéen sama mbokki aviculteurs yi yéen sama mbokki commerçant yi yéen sama mbokki producteur de pommes de terre man Fallou Samb di coordinateur CODIFAS collectif pour la défense des intérêts de la filière avicole maay ñew di waxtaan ak yéen ci lan ndax kat dañu gis ni suñu mbokk yi commerçant yi ñu regrouper bokku ci benn groupe bu ñuy wax Auchan dégage ñoom ñoo jóg ànd ak seen président muy le président Idi Thiam di UNACOIS Jàppo ñu bëgg a def benn tournée nationale ñun kat ñu ni duñ ci des ginnaaw ñu war a bokk lëkkaloo bokk benn xalaat bokk xàccandoo dóorandoo ñu ànd bokk ci liggéey bi war leen a teeru muy jour bi nga xam ne bi la mooy seen premier plan d'action bi nga xam ne la def si génn du génn wër wër dëkk bi wër euh, Sénégal ñun tamit ñu war leen a teeru war caa feeñ wane suñu bopp ndax kat gis nañ ni multinationales yi nga xam ni leen ñoo ngi dugg si ci Sénégal te nag dañoo gis lii rek waaye lii ñëw moo ëpp doole fopp ñun nag liñ ñu bëgg a def moom mooy ñu doon ñoo xam ni leen fii lañuy dëkk di doon population boo xam ne jënd rek lañ fi nekkee dootuñu doom am ñoo xam ne dinañ liggéey te kat jënd boobu ay pauvre ñoo fi nekk di mujj di jënd bu ñu leen bàyyee ñu toog jël suñu économie bi yóbbu ko ci seenum réew te capacité boobu am na fi xalaat yi am na fi borom jom yi mi ngi fi ñuy bëgg a liggéey ay sénégalais ñoo ngi fi kon nag ñun ñëpp nañu lëkkaloo bokk bëgg suñu réew jàpp ci suñu économie bañ nit ñu weex ñu dëkk jël suñu économie yóbbu ko ci seeni réew kon nag maa ngi wooñ ñëpp bu kenn des nous famille yeeg génn le président Idi à 9h place de euh, euh, euh, place de France bu de fait une heure de temps deux heures de temps dafay def bu ko fait ku ci sa bis bi li suñu bis Sénégal gi sommes la na ñëpp génn ñëw ñu won àdduna bi ni kat Sénégal bis daan dafa jeex tàkk jeex na suñu der bi dañ koy taxawal wane ñan lañu maa ngi leen di gërëm te di leen sant bu kenn manqué nag na ñëpp ñëw. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu ñëpp ci turam ak santam waaw dama mën woon bañ a wax rek ndax gars yi ñu ma gi mais bàyyi Dame en tant que président UNACOIS bi nekk Thiès wax na ak ki jiite mbirum éleveurs yi fii wax na muy Serigne Fallou Samb. waaw di yëgal nit ñi ni maanaam euh, man li ma ciy dolli tuuti la rek maanaam kii di filmer sax jàpp naa ne ci affaire économique dama yaakaar ni moom sax bu économique bi bu daanoo yaakaar naa ni loolu gënu ci moom moom mii di filmer waxuma laa nag ñi nga xam te nekk ci secteur u jënd ak jaay maanaam euh, phénomène bi fi am mooy mbirum Auchan moom jàpp naa ni euh, ku koy défendre rek bëggoo sa réew man loolu laa ko gisee parce que gis nañ réew yi mu jë yi mu jiitu ak yi mu bëggoon a dem ñoom dañ ko ak jëm jiit dañ koo dàq yëm bëggoon dem dañ ko ni fii du fi baax mu ni nag puisque Sénégal dégg na fi ay affaire yenn ressources yi commencé génn muy affaire ay gaz yeeg yenn affaires yi mu ni nag xaaral ñëw emploi fi ñëw jëm fi taxaw daaneel ñi fi nekk osa ñi muy liggéeyee ñun xool nañ ko xam nañ ni loolu du jëmal réew mi kanam parce que am na ñu fi jiitoon ñu mel ay Carrefour ak yeneen mais ni doon liggéeyee mosoo dégg benn commerçant ñëw dinaan Carrefour na fi jóge wala leneen no mais Auchan li ñu xool mooy bi ñu xoolee deux mille 2014 la fi installé boobaak léegi 4 ans la am na fi 27 Auchan ñun ñu ne ci marché bi nag di ci yëngu xool na ni économie bi mu ngi dem parce que commerçant boo ci gis ku daan jaay 50 000 fi mu ne nii 25 000 lay jar lay jaay ku ciy jaay 500 000 yaa ngi jaay 250 000 kon jàpp na ni kon 50 pour cent bi bu marché bi dem na ci Auchan ci ñetti dëkk yi mu am ci Sénégal mu Dakar Mbour ak Thiès. te ñoom seen mébét mooy dem ci yeneen yi liñ bëgg nag mooy Auchan dégage ñun loolu moo tax ñu jóg pour xeex Auchan xam na ni loolu du njariñu askan bi du njariñu peuple bi du éco du jëmal économique bi ca kanam parce que jàpp na ni réew moom li koy tabax ci li ñu jàpp mooy doomu réew moo koy defar moo koy tabax mais du ab étranger mooy jóge ci àll ba ñëw tabax ko am réew li koy tabax népp ñëpp xam ne doomu réew mi moo koy tabax mais du ab étranger bu jóge ci kaw ñëw di ko tabax parce que fii ku fi ñëw nekk ab boo amee 1000 francs 900 yi da nga ko yóbbu sa dëkk ñëpp xam nañ ko ñun ñi fi nekk nag di ci yëngu dañu bëgg ñu bàyyi nag suñ secteur xam ni sooxewuñ ci ca la fi nekk doyuñu bañ koy bokk ak keneen. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. man la Thierno Ciss délégué général ma central bu kees président département UNACOIS jàppoo bu kees dañu am journée boo xamante ni moom la ñu bëgg incha allah la 14. ñu ngi woo béppi commerçant boo xam ne yaa ngi marché central marché yi nekk ci kees li commencé mu santé grand kees R100 11 marché yi nekk ci kees ñu ngi woo ñëpp ca bis ba nga xamante ni ba moom li nga xamante moo tax ñu jóg mooy li nga xamante commerçant yëpp constaté nañu ni lii euh, vraiment xool nañu xool xool jëmul jëmul kër euh, maa ngi woow ñëpp di woo aussi sama marché bi nga xamante ni moom lañ ma gën a xamee muy marché centrale rawatina aussi jaaykatu lëjum yi ñi nga xamante ni mooy yéen nekk ci mbedd parce que yéen mooy njëkk a réclamé keroog ni ci biñ jullee korité ba pare Ablaye Diop ñëw na ci man mu ne ma wax dëgg yàlla e, mbir mi bàyceer gi si suñu lëjum li ñu man ko lu ko waral mënu ma osan moo ko waral loolu nag moom incha allah marché central marché lëjum maa ngi leen di woo mobilisation bi ñuy def e, le 14 bii ñu maa ngi ñaan yéen ñi nga xam te góor jigéen mag ak ndaw kenn bu leen ci ëppalee ngeen mobiliser waa ngeen mobiliser ni ngeen daan mobiliser ngeen def ni ngeen daal bi bu ñu xëyee suba teel kenn kenn ku ne na nga jubal place de France ñu teeru fa président Idi Thiam bu ñëwee mu lancé message bi nga xamante ni moo tax mu jóg ñun commerçant yi képp kuy jaay gerte ba ci caaf bitigu koñ yi lépp bàyyi ñu kenn parce que lépp la laal bu bu boobaa nag ñun ñëpp ñu daje fa marché yi nekk kees yëpp woonuñu marché yëpp bàyyi ñu benn marché li commencé garage jéem muusante grand kees R100 marché ngelaw marché Thiali marché mus eh, kii eh, Darou Salaam marché Xelga ñu ngi woon ñëpp bàyyi ñu benn marché boo xam ne yaa ngi nekk ci biir kees commerçant yi nag moom génne leen seen place lu jafe la mais balaa ngeen génn sen place jafé jafé am jafé jafé am na nag bu boobaa nag xamna naa di ngeen góor yoxu génn di mais képp ku xëy jour samedi bobu bu kenn lal nañ yëpp ci place de France diggante 9h ak 11h la bu jeexee kenn ku ne jël ci sa liggéey. asalaamaaleykum wa Thiès ñu ngi leen di nuyu ñun wa INAK waa jàppo ci suñ siège di leen wax ni leen ni dafa am lo xamni dafa xew té li xew moy ñun ñëpp xam nañ ko moy dëkk bi ci bopam jamono yi mi ngi jëm ci guuta guute gi lan moo koy indi mooy Auchan Auchan mi ngi lor commerçant yi pas commercant yi sax mais mi ngi leen di lor yéen population bi jàkkaarloo ñu di ñu seetaan parce que yéen ñii di jël seen xaalis di ko jox Auchan mu koy yóbbu France chaque guddi ñun ñi leen daan jaay doon seeni doom lépp lu ñu liggéey daan ko bàyyi ci dëkk bi léegi xaalis bi France lay fanaan yi kon dara bu yàggee danañ dem ba dara dootul am Sénégal li ñu bëgg nag mooy président national dafiy ñëw ci ndigalul président régional Baye Dame Diagne ñu ngi leen di wax ni leen yéen commerçant yépp nañu daje samedi 14 à 9h ca place de France bu ñu dajee président am na déclaration boo xam ni da koy indi pour wax ko commerçant yi kenn ku ci nekk jàpp ko jëfe ko xeex bi mën continuer ci Auchan parce que xeex bi du xeex boo xamante ni fii lay yem dañoo commencé rek mais nag am na yeneen plan yoo xamante ni nii danañ ci dem ci kanam ñun ak ñoom bu fekkente ni ñoom doomi réew ma da leen gënal seen doomi réew waa ilaa ay tubaab da leen a gënal ay sénégalais yi nga xamante ni ñoo leen faloon ni ñoom nan ci dem ñun ak ñoom parce que nag am na loo xamante nii mbéjum kanam moom borom moo koy fajal boppam yéen yi nga xamante ni yéen nekk ci marché yi daan xeex ay foire tey foire bu xamante ni indéterminé mi ngi nii tege mooy Auchan Auchan mooy foire boo xam ne du jeex mukk bis bu ne ñu ngi foire bis bu ne foire la parce que gis ngeen li fi xew ci koor gii ñu weesu te di ngeen gis li fi xew ci tabaski gii di ñëw lépp Auchan moo ko waral moo bëgg rey commerce bi bëgg neutraliser jaaykat yi takkuñu ay buumu jaam delloo ñu ñu doon ay ñoo xamante ni dañ leen di liggéeyal ñoom ñu ñuy fay buumu jaam daal lañ ñu bëgg delloo te ñun duñu ay jaam dagg nañ buumu jaam gi yàgg na comme que dagg nañ ko nag tey jii président war ñëw ñu war a wane suñ bopp war a wane ni lii kat daf ñoo naqari UNACOIS jàppoo bu taxawee di xeex lii ñun commerçant yi ñoo ko war a wan a may doole war a mën may président gëmloo ko ni ko bu arrièreul moom ñun duñu arrière ñoo ngi ci ginnaawam ñoo ngi ci kanamam lépp loo xamante ni soxla na ko pour xeex bi ñun pare nañ pour def ko jar na ba bu demee ba joxe suñ bakkan bii danañ ko joxe mais Auchan moom ak lépp loo mën a dégg danañu abal ci nii mbaam mu abal ñu ci naa loo mu ci bañul nag moom Auchan ñun commercant yi duñ ko ci ban salaamaaleykum wa rahmatullah ñuy gërëm ñëpp